may wax ni ñun ay menaces yëngaluñu ça nous fait rire d'ailleurs waaye dañuy jël au sérieux la ndax ñi ñu ko jaa ñi ñu ko settal ay assassin lañu jaaxle nañu jaaxle boo xam ne tey suñu munoon faat bakkanu Ousmane Sonko def nañ ko li koy firndeel ma nettali leen lu ndaw barki bi ñuy dem ci manifestation bi dama génn dugg ci oto Waly Diouf Bodian ñu dem ba ci yoon bi.